Est-ce que Ba, une fois élu député à l'Assemblée nationale au sein de la 15e législature, mën porter le combat pour la Moi, criminalisation suis... de l'homosexualité man dama am respect mhm. dama am respect ci doomu aadama man doomu aadama li nekk ci moom mu ñaaw ne ma ko pas. du ma ko gis fekk lorul ñi ci des fek yàqalul ñu ci dess vraiment nit ki la doon biir kërëm wala lamay def ci biir neegam la muy def feneen vraiment yoonu Amadou Ba nekku ci man defe naa am na débat yoo xam ne bu ñu ko dee wax wala ñu koy def en fait dañuy tardé Sénégal li fi ëpp solo c'est le débat économique. Hmm. maintenant amaana la nga xam ni nag yow ci sa bopp la nekk nañu fexe ba nga ko boo koy dund ak noo mënti mel nuñ la mënti tuddee na ko yemale sa biir néeg ak sa biir kër bañ a sonal beneen Sénégalais je pense que. éducation bobu lañu wara avons euh, sénégalais Si bu nek des xeyé di nga nuyu peut-être junni nit bo des politicien xamo kuñ ci wax lolu kan kan lañ ko ci waxul kan moko ci mel kan sax mo ñooñu lolu yëpp amna ci ci ci débat dañ ko dépassionné fexé ba nit ku la la société li sa yi je pense que c'est le débat le le plus important. mafadu lala xame moom lay xoole moom lay déggi sama gémmiñ sa moom moom naare naa leen gaay ci lu ngeen ne baa yéen a ngi si jàmm bu baax a baax a baax a baax dégg ngeen jiital ja jàmm ak njariñ li mu wax moom amadou gidaba dañ koo pour boo demee assemblée nationale nga criminaliser mbirum góor jigéen moom Amadou Ba ne loolu yoonam nekku ci ndax ña koy def seeni biir kër lañ koy defee seeni biir néeg lañ koy defee te fii ak ña ngi yemale ci seen biir kër wala ci seen biir néeg rek moom Amadou Ba loolu yoonam nekku ci ndax nee na daa fonk nit moom Amadou Ba nag kàddu yi la yëkkati ci biir campagne bi ci biir campagne bi nag damaa gisoon ñenn ci opposition bi yëkkati woon ay kàddu di wax ne dégguñu président Ousmane Sonko wax ci mbirum góor jigéen waaye ñoom opposition boobu dégguñ président Ousmane Sonko wax ci mbirum góor jigéen waaye ki ñu dégg mu wax ko muy njiital jën jàmmal njariñ lan moo tax waxuñu ci moom ndax moom li mu wax Sénégalais yi xaaruñ loolu ci moom damaa déggoon kenn ci opposition bi muy ki ci bëri wax rek ki ci gën a bëri wax rek muy nenu waxal yëkkati woon ay kàddu ne moom président Ousmane Sonko déggul mu wax ci da ko doon xaar ngir mu wax moom mi nga xam ne mu yëkkati woon kàddu yooyu moom nenu baxal bi mu déggee Amadou Ba yëkkati kàddu yi lan moo tax waxut ak Amadou Ba moo tax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon nay opposant lañu du ñuy opposant ay saytaane lañu moom nenu baxal dafa toogoon ne président Ousmane Sonko du wax ci mbirum góor jigéen du ci wax te président Ousmane Sonko waxoon na ci lu leer ne woon mbirum góor jigéen moom duñu ko nangu fii ci réew mi te bu ñu amee majorité assemblée nationale dinañu ko criminaliser loolu la président Ousmane Sonko waxoon te loolu la wéyoon di ko wax moom njiital dégg jàmm ak njëriñ nag wax na ci gémmiñam ci biir campagne bi ne moom yoonam nekkut ci mbirum góor jigéen fii ak ñi ngi ci réew mi di dund seen jàmm ak seen salaam fii ak ñi ngi ci biir réew mi di dund seen i mbir ci seen i kër wala ci seen i biir néeg te loolu ñu si askan wi moom yoonam nekku ci te askan bi nag xaaruñu woon loolu askan bi dañu doon xaar ku ne mbirum góor jigéen bu ñu demee sa assemblée nationale dinañu ko criminaliser loolu la askan bi doon xaar moom Amadou Ba nag niñ ci laaj mu tontu ci ne moom yoonam nekku ci fii ak ñu ngi ci réew mi di dund ci jàmm ak salaam fii ak ñi ngi ci réew mi di nekk ci seeni biir kër di def la ñuy def ci lu bon moom yoonam nekku ci ndax nee na moom ab politicien la boo xam ne day xëy di di ay nit ñu bari ñoo xam ne mënu cee xam ne góor jigéen la wala kii lan la wala kii lan la Amadou Ba nag liñ ko doon xaar moom tontuwu ci ndax nee na moom mbirum góor jigéen yoonam nekku ci kon Amadou Ba mën nañu ne mbir mi wax fa dëgg yàlla fan ko doon xaaree ci moom ak lañ doon xaar mu wax ko waxu ko nee na mbirum góor jigéen daal moom fii ak ñu ngi di dund seen la balaxal mbaaraan ci réew mi moom yoonam neeku ci te mbir mi ki nga xam ne ne moo ci gënoon a rëy di nenu baxal di attaque président Ousmane Sonko di ko wax lu ne ne opposition bi ñu ci bari ay saytaane lañ woon wala sax mën naa ne ñëpp ay saytaane lañ woon ñu déglu nag kenn ci sunu maam moom yëkkati woon nay kàddu. dama koy ñaawlu mooy le fait que bulletin sàmm sa kaddu bu Barthélemy Dias dañ ko teg ci gannaaw a gannaaw a gannaaw wala kaano du kuy ah, tànn balaa ngay xalaat ne yaa ngi di di di nga ko tànn moom mais de fekk tànn nga ñeneen ñi naan sëñ Tuubaa gëmunu ko man maa moon maay te je pèse bien mes mots et je parle en parfaite connaissance waxal ak soxna si yéen lay waxal ko mu am ko Ablaye di nga yuuf di nga ko am dalalal sa xel te lii dañu jëm ak moom 2029 du ñu doon liggéey du pour lii nan la jox réew mi nga yóbbu ko

donc euh, lolu lolu lolu jaxalu ñu lu may wax rek amna lo loo yeen gis ngeen ko sax ci internet ci net bi dégg naan dégg nañu ñun ñëpp que nguur gi gouvernement bi dañu programmer dañuy arrêter Barthélémy Dias mais lolu ci m'a tay ci jaay doole te du moom kenn la ñu programmer programmer nañu dañuy jàppaat aussi Bougane Gueye Dany ak xaw ma kanati n'est-ce pas mais lolo ay ay ay ay provocation le comme ni ñu ko une campagne bi provoquer nini. donc donc loolu amul solo mais ni ko ni ni ko war a exécuter nañu fàttaliku ne fille Sénégal la boule a tourné il faut choper ñe plusieurs fois te li fi nekk tey dana mës a soppeeku daf fi mës a non du ma moroomam yoo tam xool ma man maay Jean Paul

wala Gallo. gars yi de barke si boo jommee lu ne ngay wax rek xamoon nañ ne élection yi du yomb ci ñoom Ousmane koo ci woo mu mu dóor la ba wëlbati la keneen ñëw mu dóor di wëlbati xamaa loo xam ne nag muñ mais war def ci lu gaaw war def lu gaaw gaaw gaaw ni ak ah comme gars yi nañ dañ leen bëgg a dañ leen rek am ah, moom suñu maam ji yàlla na ko yàlla defal jàmm te guddal fan yu wér ak ceen <laughs> waaye li wax nii dara rafetu ci Pape Lim Dias bulletin yi dañ ko doon jaxase ay bulletin yu balaa bu dëgg yàlla te dañ ko jël yóbbu ko ca ginnaaw ak ginnaaw ku a woteel fekk woteel nga ñeneen ñi ba pare. yàlla. li mu ne parang fii. fu dëgg yàlla rafetul ah man de élection yàlla buñ ne gars yi dañ koo sàcc wala dañ koo lëbëj lii kenn xamul lan la. président Ousmane Sonko jàpp Amadou Ba Ndakaaru jàpp suñu Moustapha Sy jàpp Pape Lamine Dias jàpp président Macky Sall affaire luus na quoi duur yi moom wax dëgg yàlla luus na waaye nag ñi rek la mën a dem xam nga bu la jàppee wulli la ba ngay soox moom bu la bàyyi rek nga xool benn place waaye yàlla baax na yàlla jeexul nee na yàlla pare na comme yàlla ñu dogal dogal na daal kon béykat ñu buñ rek. moom nag suñu maam la yàlla na ko yàlla defal jàmm te wéral cër yi pour benn problème waaye nag information yi mu joxe wax dëgg yàlla dinañ ko topp xool ba xam Pape Lamine Dias ak Bougane lan lan def ban bëgg leen a jàpp. jéggi ma laa imaginé si ñu dem Walf xool gis nga Covid 19 bi bokk na ci arnaque bi nga xam moo gën a garaw ci nguuru Macky Sall te loolu état bu Sénégal waru koy bàyyi mu jàll parce que au delà d'âge yi nga xam ne lañ ci tudd. am na ay ministres ay ministres na lañu ñu nekkoon fii ñu tudd leen ñu xam leen kon ces ministres là dañ leen war a entendre bu laajee aussi yoon am ci ñoom yool dafa war am ci ñoom yool benn ñaareel bi aussi mooy dafa am aussi beneen boo xam mooy loi d'amnistie xam nga loi d'amnistie bi président Macky Sall moo gaawantu wote ko mm-hmm. parce que ñàkkul ne xam na ne mu ngi dem. ba noppi wax ne nag lépp loo xam ne événement politique la diggante 2021 jàpp bu 2024 da koy amnistier mm-hmm. ci lañ boole affaire ñoom ay affaire ñoom Sonko yeeg ñoom seen <coughs> mais président Macky Sall bu muy dem bay loi bay créer loi d'amnistie mm-hmm. ana ban Sénégal moo demandé à ce que def loi d'amnistie amul mm-hmm. amul kenn sénégalais koo xam ne yow yaa demandé à ce que président Macky Sall def loi d'amnistie moom moo toog ba ci biir gis ne ne ministre bi def nañu njombe goo xam ne maar day te peut-être bu demee moom peut-être mën na am benn immunité mais ñii duñu am immunité te buñu leen toppee ñoom ñëpp dañuy dugg kaso léegi nag mu nag pour jéem a xaaral ma créé benn genre loi dem ne su ko defee ñooñu mën a yóbbaale mais li mu xamul mooy que ba muy taxawal loi d'amnistie boobu la tey jii moom mën na ko taxawal mais gouvernement bi ñëw ëllëg am na droit daal koy abroger kon bokk na ci décision yi nga xam ñu ngi xaar ci état maanaam ci nguuru nguuru Diomaye bi ak nguuru usman Sonko bi mooy bu ñëwee ci wala abroger cette loi d'amnistie mhm. parce que plus de 80 personnes ont ci un mhm. plus de 80 personnes n'ont ci ministres qui ont fait Je fay aussi généraux est-ce que tu as parce que président pour pour jéem na pour jéem na aar ba tax vraiment ñu war a bàyyi loi d'amnistie bi jàll non li ñuy xaar ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye ay mooy bu ñu toogee cette loi d'amnistie la ci nu mu gën a gaawee dañu koo war a abroger su ko defee ñëpp ñi nga xam dañu leen tudd ci affaire bi wax dëgg yàlla ñu war leen a àndale àtte parce aussi Sénégal loolu la benn aussi fi may fi may fi may ñëwee mooy la euh, mooy le contrat d'armement bi nga xam ne nii lëmbi woon na fi ay jamono le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall. signé woon ko euh, euh, defoon ko defoon ko yaakaar naa Demba bu ma jimee nga ko le 30 octobre 2021 mu yóbbu ko ci Abdoulaye Daouda Diallo mi nekkoon ministre des finances jamono jooju mu daal di ko koy nangul ñu ne contrat bi lan la maanaam dañuy jënd ay pistolet jënd ay fusil d'assaut jënd ay munitions ci ñaata.

ñu dit ko xamni ne nee nañu ab trafiquant xaw ko xawle la la ab bandi la ci wàllu ci walu bandi financier la ni ko mën a parce que bo demee ci réew bi nga xam foofu la fekk bax di Niger nga dem ci dëkk bi nga xam moo di Nigéria dañ ko fa def ben mandat d'arrêt international ñemu fa tek tankam di ko xam ne ni gars yi nee nañ xam nit ku bax la kenn wartu jëfal tan ci wàllu xaalis état du Sénégal bi fi nekkoon dem jëflante ak moom ci ab contrat boo xam ne ñu toll ci 45 milliards de francs CFA te pourtant loolu bu muy am mënoon nañ ko yóbbu ci ministère des forces armées comme ça mu def ko liggéeyam léegi nag le problème qui se pose mooy que loolu nga xam ne créé na fi tollee ba opposition bi sax waxoon ne jamono jooju le député opposition bi waxoon ne dañ ci ubbi ab commission d' enquête parlementaire finalement aboutiru mm-hmm. est ce que dossier bi war nañ ko bàyyi mu jàll non contrat d' armement yi al amin mbake setu Cheikh Sidil Muxtaar Mbacke radiyallahu taala anhu borom fas fas nga xamni ci ngor rek lay dox serigne fas nga ngi lak dekk wa mom ñepp xam nañ lay mbiram kenn nattab lewtu ko. képp ko xam da nga nek mag ba ndaw am jafe-jafe new katan mo xam sa awara di noy di lax ngay gaaw yegg wala nga nek nit ko xam ne do sa bop dara ci ngóor a jëlal fas gi. fas la ko xam ci sama mam la joggé mu don don billahi wallahi wal kitabi at am. boo ko taqee taquk néew kàttan loolu Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ ko te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil Sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox. du looy naan du looy diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw. dans la ci al amin Mbacke surtout Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke radiallahu taala anhu kon nag gaañi fas gaa ngoog dawal woutiko, ko ci nu mu gën 45 et quelques milliards de francs CFA mais kii ken waru koy baye mu jàll. il faut que gars yi créer yenn conditions yoo xam ne dina mën a permettre comme quoi comme ça que khalis bi ñu élucider ko wax ñu khalis bi manam, contrat bi naka lañ ko tëggee deuxième mois si buñ ko buñ ko tëggee aussi ndax exécuté nañ ko lan motax tax tan yi tànn ab Aboubacry Imé lan motax aussi gars defu ñu appel d'offre lan motax mbir yi jaar lañ ko ci ministère des forces armées ay questions yo xam ne dañ ko wara mëna poser. Mm-hmm. té lolu pour mëna am il faut que état bi léral ñu ko gis nga dafa am ay points yu bari yo xam ni dañuy xaar ci législature bi wala ci état bu bees bi ñu léral ñu ko parce que ñu bëgg xam. Mm-hmm. gis nga problème mu haute cour de justice bi bëgg nañ ñu taxawal ko ci lu mu gën a problème loi d'amnistie bi bëgg ñu abroger ko lu mu gën a loi d'armement bi aussi bëgg nañ ci nu mu gën a gaawee. Mm, ñu daal ci ubbi ab enquête mm. comme ça su ko def ñu mën a situé. Seydina Omar Ba li ma wax garaaw la Covid 19 bi armement yi sàcc bi man nguuru Macky Sall laa gis ci nguur goo xam ne boo leen déggee ñu ne ñi fi newoon sàcc nañ doo ci dégg 300000 doo ci dégg 400000 doo ci dégg 500000 li ci gën a ndaw moom ay million la la ca topp mooy ay milliards nguur goo xam ne yow. ña la fa tegoon pour nga jiite leen dimbali leen yërëm leen loolu lépp defoo dara waaye dañ laa jiital nga di leen jariñoo maanaam buur boo xam ne day dunde ñaq baa doole loolu moo amoon ci nguuru Macky Sall jël alalu askan bi di ko paacoo jël alalu askan bi di ci jënd ay arme di ci ay askan bi loolu nag Sénégal rek tëj nañ seen bët da daan gis koo xam ne day dox ci mbedd mi ñu ne ko tël bal mu ne ci suuf ndeer faatu yàlla te du mujj fenn motax nguur gi fi ne am nañ liggéey bu mag a mag ci assemblée nationale mbir yu ñu war a taxaw ñu doon ray ñan ñoo ray ñu doon jël gone yi du yóbbu ñan ñoo jël gone yi du yóbbu ndax si géej gi déggoon ngeen ñoo xam ne dañ leen a kidnappé woon dugal leen ci biir géej gi tëmbal leen ndax déggoon ngeen assemblée nationale am ko naan ku fi daru dañ lay jàpp tëmbal la ci biir géej gi maanaam réew mi waxuma la dara mais réew mi fépp doon metti foo jël réew mi da doon metti bu ñii di ray ñii di jël nit ñi ñii di sàcc alalu askan wi nguuru Macky Sall nguur gu ko gën a yees yàlla sàkku ko moo tax yàlla nañu yàlla defal jàmm président Ousmane ko président Diomaye yàlla aar leen ba li ñu bëgg liggéey réew mi yàlla sottal ko te dooleel leen ndax nag man am réew li ma ci xam mooy réew mi ñëpp dañuy maase nekk ci benn yoon di ca dox waaye réew moo xam ne ku ma am nday la ak ku ma amul nday ci nguuru Macky Sall laa ko gisee woon nguur goo xam ne ay millions ay milliards la ñuy sàcc ci nguuru Macky Sall laa gisee nguur goo xam ne ba nga naan président ba ceeb bi siyaar na di ko jooytu mu ray la nguur goo xam ne dalaa xoj ne la yow moom say métit ak say jafe-jafe ak say coonaak danga koy muñ doo ko wax loolu amoon nguuru Macky Sall ba pare jël suñu alal ji moo tax président Diomaye président Ousmane ko dimbale leen ñu ci dañuy ñaan ci njëkk ak ak ak teraanga ni ko Macky Sall daan waxee ñaan ci njëkk ngeen toppal ñu ñii ba li ñu jël ci askan bi li ñu sàcc li nga xam ne lewal nañ ko ci alal joo xam ne moomuñu ko ngeen indi laatal ñu ko ñun askan bi ñu mën koo jariñu yàlla leen yàlla defal jàmm te aar leen iir leen musal leen ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy ay opposition yu bees te musal leen ci ñoom seeni wax ak seeni jëf ak seeni pexe yàlla leen yàlla defal jàmm ndax su ngeen jëmee réew mi baax na